tey ci sëñ Moodu mii nga xam ni moom moom la ñuy siyaare si bi ma jógee ci sëñ Moodu Habib laa jawal si fii yàlla def nag li nu seq moom xam na ko bu baax

moom la sëriñ bi dëkkaale woon ci biir kërug boppam. amul ñaareel. loolu moo ko ci am. ngir cofeel gu rëy. sunu sëriñ ba suñ soxee bu it. dafa am lu mu daan wax sëñ muro bi mii tey. te loola ñoom ñi sëñ bu jur ñépp koo ci xool gis ca loola. daf ko daf ko daa wax ne ko Mamadou. sa baat bi baatu barkeelu la ndax sa baat bi daa niroog baatu sa góor ga sa góor ga it baatam niroog baatu góoram ga loola nag ku sëñ Abdu jur rek su waxee nga xam ne waxee nu sëñ Abdu lay waxe te sëñ Abdu kàddu suñ Tuubaa rek la yor kon bu leen yàlla taw fee xale ngeen am ci ku mel ni sëñ bii nga xam ne kenn la wér nanu ni li ngeen bëgg lépp mu ngi ci moom tur wii ñu koy dàkkantale it doomi suñ Tuubaa ko waxoon muy suñ soñe bu <laughs> kon nag mun sant la def man nag mënuma koo fay ndax fi mu àgg man ak li mu jëf ak man te yàlla képp tax ak fedd li kóllëre sëriñ bi ndax jël na doomi boppam sedd ma ko mën mii fii nu toog fi laa doon mayee xale bi te du te lépp dama ko jëbal te noonu rek la suñuy waajur meloon nag ànde ko ma di la xamal nag sëriñ bi ne la fu ma mën a nekk yaay sama kilifa ci sëñ te nangu naa ko xol bu sedd lepp lu ñuy sant taalibe boo ma ko waxee ma def ko lool nak kon yeen ñi ma fi tassel ngeen gëna gor gor te xam ne lu ci nit am rek da ko sakku ndax liko def moy sëriñ bi xam ngeen fim jaar ak limu daj am limu am kon ku bëgg ci la mu am nak da ngay nango sonu ak pasteef bu wér te wëlbatiku sàkk ko nag bu ko defee daal di koy am kon nag sëñ bi ñu ngi lay ñaanal yàlla ak bokki taalibe yi ñu fi dajeel yëpp yàlla àggale seen yéene faj seeni i aajo te lii ngeen def bu ngeen delloo ngeen gën a takku gën a doon benn gën a wéral pasteef yi ci moom mii ndax bu ngeen ci ngoyee te jàpp ko te dox jëm ci moom lu ngeen bëgg ci sëñ Tuubaa rek dana leen fekk si te nattab ko jërëjëf Tövbe